téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi di kontaan ci àddu ngeen di teewlu seen télévision Futurs Médias seetu askan wi ñu koy amee fii tey ajuma ñeenti fan ci weeru mars 2016. di leen ñaanal kenn jàmm ajuma yi tey jii luñ ci yàlla na ko yàlla def ñuy kilifay diine yi yàlla na leen yàlla yéegal ci maxamay way jur ya kilifay aada yi di leen ñaanal ñu réew mi nga ko muy kilifay réew mi. président la république ak ñi mu àndal ñëpp di leen ñaanal wér ak jàmm di leen ñaanal fi mu bëggee jëme réew mi yàlla na ko yàlla mottali te mu ànd ak jàmm mu lal koom goo xam ne day ànd ak sutura daay man ci biir Sénégal mbokk yi ñi ngi seen émission tey yeewu leen di ci ànd ak ñi ma ci daan àndal oustaz Pape mi ngeen xam ni ñu ngeen jëmam ak kàddoom ci télévision Futurs Médias oustaz maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Moulay Hadj Abdoul Aziz maa ngi lay bi nuyu Oustaz Assane nuyu mboolem kilifa diin yi ak kilifa aada yi na ci biir réew mi téléspectateurs yi safoo télévision Futurs Médias ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yal nañu yàlla may xëyum jàmm yàlla may fekki aljuma ji di ñëw kenn bañ a manqué ci dara ji si jërëm Mouhamed. amiin oustaz Pape euh, oustaz euh, Assane ma koy wooye oustaz Playboy ci émission bi oustaz maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo Moulay Abdel Aziz di am mbégte àndaat ak yow si plateau Yeewu Leen ajjuma bi di nuyu di ziar sama mag sama xarit al oustaz Pape Anne. di nuyu di ziar itam kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak ñi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala ñoom la dogal ñu yor réew mi tey muy comme ni nga ko waxee président de la république ak ñi koy jàppale ñëpp di nuyu itam mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média di leen ñaanal aljuma jàmm. ajuma jàmm ajuma jàmm ji ñaan yàlla gontuk tey gii ak lu ñu ci julli ci bis bu tedd bi yàlla na ko yàlla nangu euh, te defal nu lu kawe suñu njot yéen ñi nekk ci béréb yi nga xam ni euh, na xar yi mu nokk ci kër yi wala ci hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp ba ngeen mën a jóg joxi seen i soxla waaye ñu ñu téye it benn place prison yi yàlla génne leen ca te ñu bañ a defati leen cee delloo ndax lool it mook réew mi ñoo ànd yéen ñu nekk bi biti réew daan seen doole génn rek di dem yal na leen yàlla dajaleek wërsëg wu ngeen amee indi ci seenum réew teral seen i bokk teral seen i wayjur kon mbokk yi ñu soobu ci li nga xam ne mooy programme bi nga xam ne moom la leen dégtal tey ñu àgg ci léema yi ak oustaz Mor Thiam ndax fii bu ñu xëyee suba foog ñu léemu dugg ak yéen ci waxtaan wi nga mën a indi li nga xam ne moom la nit ñi yaakaar ci ñun télévision Futurs Médias seetu askan wi ñu dem ci léema yi oustaz Mor Thiam. bismillahi rahmani rahim. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alxalq sayidina muhammadin rasulillah mbokk yi ñuy seetaan. salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu siwaat nanu di leen nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ñu ci plateau bi ñëpp ziyaar leen ñaan yàlla sunu réew mi yàlla na fi yàlla li dal yokk xéewali tabaarakallaahu tey jii nag li jëm ci wàllu léemaay gi dafa jëm ci fàttali yonent bi sallallahu alayhi yàlla wax na ko ci alquran ne ko fàttalil fàttali dina jariñ ñaar dina jëriñ ki fàtte woon dina jëriñ ki fàttewul woon tabaarakallaahu li ñuy fàttali nag mooy sant yàlla euh, bu ñu seetloo suñu réew mi dafa mel ni baat la bu xew wi muy baatu sant yàlla léegi koo dégg mbaa nga dox ba dajanteeg moom mbaa nga gis ko danga koy fekk moom mi ngi ñaxtu mi ngi naqari deret mi ngi tawat kenn santatul wala ñu bari santatuñu ñàkk sant boobu ñu ñàkk sant day wane ni ibliis gañe na daan na Iblis dafa waxoon yàlla ni ko dinaa fexe ba ñépp ñi la gëm topp la danaa fexe ba dootuñu la sant summa laa ak aktharahum shakirin loolu nag moo yóbbu nit ñi ba boo gisee ku dem marché dem jaayi ba ñëw wala nga gis ku xëy liggéey ba wàcc soo ko dajeek moom boo nee ko noo def dalay wax ni doxul baatu doxul boobu baatu dafa metti baatu jàmbat boobu nit ñi di jàmbat te santatuñu dafa mel ni moo yokk sunu coono ndax li nu yàlla waxoon ci suuratu Ibrahim sunu boroom dafa ne woon bu ngeen sante ma dolli leen la in shakartum la azidannakum mu teg ci ne wala in kafartum kufru boobu le du kufrul juxuut nekkul kufru boo xamante ni kii nit ki dafay weddi yàlla weddi yonent bi kufru boobu mooy kufru niamati yàlla jox la xéewalam nga bañ a gis xéewal gi ba bañ koo delloo njukkal gi loolu nag dafay jur coono day tax nawet dootul neex day tax boo wutee doo am day tax boo jàngee doo xam day tax boo sëyee du neex yooyu yëpp lay boole def ko ci sunu penc moo tax ngalawaay gaañ yi nañu delloo si waat baatu cant yàlla boole na noo sunu maam ju baax ju nekkoon fii ci réew mi ñu koy wax maam Seex Anta dafa amoon lu mu baaxoo woon def maam Seex Anta baat boo ko mësoon indil da cay teg alhamdulilah soo ñëwee ni ko maam Cheikh Anta dama doon jàng am naa sama examen mu ne alhamdulilah maam Cheikh Anta di wàcc na liggéey mu ne alhamdulilah maam Cheikh Anta dañ may may soxna alhamdulilah bay dañ tool yi ba noppi mu ne alhamdulilah baat boobu muy cant googu lañu war a delloosi pour suñu borom décanter suñu situation yi du état du nguur du premier ministre du président moo ko ma décanter ki ko mën a décanter mooy rabbul izzati te tànk santu ñu ko du décanter situation yi gaañ yi nañu sant ndax yàlla dollil ñu mi ngi noonu Oustaz Mor Thiam ci cant alhamdulilahi rabil alamin defe naa ni loolu war na ku nekk xëy suba yeewu fudd mu neex nga teg say tànk tàllal say cër jóg ñaadam ñaadam dugg ci du sangu sol sa yére génn taal sa oto mu tàkk nga dem liggéeyi bokk na ci sant yàlla tàllal sa loxo làmb sa poos fekk ci dépense bu nit yeewuwul ak dépense jar na sant yàlla kon la waaye Baye Ibou Sakho waxoon bala ma ñëw ci sama gars yi nee na li nga bëgg a mel ni nga bëgg mel gënul ci yow ni nga mele ne gën comme ni nga mel na ni nag mooy lii nga xam ne loolu la sant yàlla daf ci bokk oustaz Papa. jërëjëf euh, xam nga yàlla moom bu mu ne defal lii boo ko deful la cay topp du baax ci yow. <laughs> yàlla dañ la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi hmm. la shadid yàlla ne na su ngeen ma santee man yàlla ma dolli leen. waaye su ngeen ma weddee nag sama mbugal dafa tar man borom bi subhaanahu wa taala te cant nag ñeent la bi jóge ci jaam jëm ci moroomu jaamam bi jóge ci jaam jëm ci yàlla bi jóge ci yàlla jëm ci jaamam euh, ak bi jóge ci euh, bi jóge ci euh, xawlu minhu lahu minhu li xayrihi min xayrihi lahu min xayrihi li hmm. cant bi yàlla sant jaamam ni'mal abdu innahu awwaabun cant bi jaam sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin ak sant bi yàlla sant boppam moom moom yàlla cant mhm. sax yàlla sax sant na boppam mhm. waaw waaw yàlla sant gi mu sant boppam ak sant bi jaam sant moroomu jaamam mu la Abdul Aziz teraanga bi ma defal ma ni la euh, maa ngi lay sant yàlla nee na nit bu la defaree teraanga na nga ko sant gërëm ko waaye itam ñaana ko yàlla kon nit war nay sant ndax yàlla nee na boo ma santee man yàlla ma dolli la defal naa la ñaar fukk mhm. nga ni ma yàlla alhamdulilah bu ëllëgee ñeent fukk laa lay jox kon sant nit war nay sant yàlla bu baax ci bu neexee ci bu naqaree nga delloo lépp ci yàlla comme ni nga ko waxee la baa bi saax waxoon mu nit ko ne ni nga bëgg a mel gënul ci yow ni nga melandee gënal bi ci yow te ki la melal ni nga mel moo la gën a xam sa bopp moo la gën a xam sa bopp moo la a xam bopp oustaz Pape Hann jërëjëf euh, oustaz euh, defe naa ni loolu tamit am na solo ndax nit ki sant sa diggante ak sa borom waaye sant sa diggante ak sa morom parce que am na solo ndax nit a ngi dimbali nit ci yoo xam ni kenn waxu ko kenn forcé wu ko pour mu dimbali la kon mu def ko nga gërëm ko wàññiwul dara ñu ñu bañ laa dimbali taxawul nga war a mën a xarab nit ndax kooku day xam ndax xelam àgg na fa wala am na ko ndax léeg-léeg nga jéeñ nit loo xam ni foog nga ni am na ko amu ko kon ndimbal la boo xaaree ci moom te ñëwul si kaa nga cee am warul am oustaz loo xamante ni mën nañu wax ne jamono ji nit ñi léegi dañ koy def muy jàmbat bu bari fàtte di sant suñu borom subhaanahu wa taala te yàlla moom moo njëkk sant boppam laata kenn di ko sant kon nga sant ko moom santu na nga bañ ko sant moom santu na léegi nag gis nga dafa dem sax ba ñàkk sant yàlla suñu borom tuddee ko ak weddi muy weddi xéwal gi nga xam ne sa suñu borom subhanahu wa taala defal na la ko ndax dégg nga ko léegi mu ne la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la ko su ma la defalee xéewal nga sant ma yokk su nattu ñëwee nga sant ma teggi nattu ba waaye bu fekkente da nga dëkkee jàmbat dëkkee ñaxtu suñu borom subhaanahu wa taala nee na mel na ni yow da nga weddi xéwal yi nga xamante ni moom laa la defal beneen cant gi mooy cant gi ngay jëmale si sa moroomu doomu aadama yonent bi sallallahu alayhi moom moo ko wax mu ne képp koo xamante ni doo sant doo gërëm sa moroomu doomu aadama yow santuloo yàlla ndax lu nekk am na foo xam ne fa la ko yàlla di jaarale léegi nit ñi nag dañ lañ defal doo si séntu sax sant mais dafa jaadu ki nga xamante ni yàlla dogal na am lu jóge si moom ñëw si yow nga sant ko ñaanal ko yàlla loolu itam nañ ci bàyyi xel bàyyi jàmbat bu bari bi jàmbat bu bari bi day tax suñu borom subhanahu wa taala mere ñu mu laay képp kenn si ñun saa yoo xëyee mhm. teg sa tànk suuf xalaat tuuti war nga xam ne am na ñoo xamante ni gën nga leen demin fuuf te dañu ñu ñu ngi sax di sant suñu borom subhanahu wa taala kon nit ñi nañu delloowaat di sant yàlla mhm. ndax yàlla wàccee xéewal li mu saawaan baawaan ñëpp xaj si kon nañuy sant yàlla sant yàlla rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sant suñu boroom sant suñu moroom yi nga xam ñoom lañu seqal oustaz Pape sant dafa am solo waaye jéggulu doog a sant ndax bis bu nekk nit tooñ boromam mhm. sant ko ñaan ko teg ci mu dolli la. Mhm. yaa ko wax léegi. Mhm. te nit ku nekk oustaz Pape ji nga tooba boo xam ne sa digganteeg sa borom bëggoo mu sax. Mhm. kon bu la sàngi sutura sant koo war na saa am nga tooba boo ji. waaw sa digganteeg sa borom bëggoo mukk mu sax. def nga ko sa digganteeg moom moom. mu defal lu sutura soo xam ni kenn xamu ko. am na sutura am na ponkal mu tëdd moo xam ni bu yàlla firindi woon rideau bi rek mu woon li mu def rek ñëpp génn ci moom. kon loolu sutura boobu jar na sant yàlla. te nit a ngi dugg ci sutura saa su ne. nit a ngi suturaal moroomu jaamam. ci lu mu ko xamal ci lu ñaaw wala mu def ko loo xam ni bu ko génne ni lii la ma defal ñëpp bàyyi ko kon sant sa sa morom dafa am solo. leneen li ci des nag Oustaz Pape ñuy santante suñu biir am na solo bu baax a baax. ndax jëfin yi ndax muñale gi. léeg-léeg nga def nit loo xam ni du ko wax kenn du ko xam. mu mutuwaale ko ci biiram. bàyyi la ak moom ngeen dem nga defee darul la fekk war nga ko sant bu yàgg. kon sant googu lañ doon wax mbokk yi. kooku mooy li nga xam mooy moom lu ñu ubbee tey leemaa yu euh, yeewu leenu ajuma. Oustaz Mor yàlla na ko yàlla dëgëral sant ko ndax thème yi muy indi kontaan nañ ci lool ñu ànd ak ki nga xam ni mooy soxna Fat Bintu euh, soxna Fat Bintu maa ngi lay nuyu ci ajuma ji. Fat Kiné ki ne plateau bi. di nuyu également ñi nga xamante ni ñoom ñooy bàyyi xel bu baax a baax émission bi di yeewu leen. soxna si Fatou Kiné tey ñu ngi ci xam naa di bopp xibaar yi tey lan ci wax bala ñëw ci météo. waaw euh, dinañ wax ci bopp xabaar yi nag euh, daal di koy tàmbali ak xët yu njëkk yi bokk na ci l'observateur moom daal di xëy nag ak li nga xamante ni rek moom moo am ni kii euh, démb muy nag njiitu réew mi Macky sàll doon waxtaan ak waa Benno Bokk Yaakaar loole nag aju ci référendum bu 20 mars 2016 bi nañu xam ne nag mooy njiitu réew mi Macky Sall fi mu ne nii nag teg na ab état coram Macky Sall nag la mu bëgg rek moom mooy référendum boobee ñu daal di ci am ndam nee na nag ñu am doole lañu waaye tamit nañu jàpp ni ñoom ñoo ëpp sax kàttan ñi nga xamante ni ñoom ñooy kujjeeg politique gi Niass Tanor ak ki nga xamante ni moom mooy Dansokho ñoom ku ci ne nag yaa ngay wax ak kujjeeg politique bi lañu bëgg daal moom mooy fexe ba référendum boobee bu ñu yeggee ñu daal di ci am ndam ñu yegg si si beneen yéenekaay muy le quotidien moom nag daal di wax ba tey ci coow li aju ci référendum bi mu nekk nag ak polémique boo xamante ni jëm na ci ñii ne waaw ñii ne déedéet référendum boobee euh, parti euh, socialist seen gis-gis Moussa Bokar Thiam nee na nag lu jëm ci wàllu wote yooyee ki nga xamante ni moom mooy Aïssata euh, Tall Sall moom dañu ko war a dàq Bamba Fall nag taxaw Dakar moom nee na dafay voté déedéet ci référendum boobee. ñu yegg si si beneen kaay muy euh, las las quotidien moom nag daal di àddu fi mu ne nii ci li ñu duppee grande offensive aju nag euh, ci référendum bi ni ñu ko waxee ku jekk politique gi nag euh, fi mu ne nii mën nañu wax ni dinañ def seen kéemtalaay kàttan ndax waa Benno Bokk Yaakaar duñ leen ca bàyyi ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ba waa Benno Bokk Yaakaar ñoom lanu nag mooy dinañ fas yéene kon génn Ndakaaru dem ba fi nga xamante ni moom mooy gox goxaani ba ci biir réew mi buntu kër yi daañu ko fëgg ngir xamal leen ñu référendum boobee ak wote gi ñu ci war a wote te ñëpp war koo def ci waaw ñu yegg si si beneen yéenekaay muy la tribune Amath Dansokho nag moom fi mu ne nii euh, daal dinay waxati moom Amath Dansokho yëkkati ay kàddu nee na nag euh, li nga xamante ni moom mooy référendum bi bis boo xamante ne nii nag déedéet ji daal dinay am ndam euh, man jàpp ni parti démocratique bu Sénégal dana def kéemtalaay kàttanam ngir nag jéem a indi fitna ci réew mi yéenekaay muy réew mi quotidien daal di wax nag moom ci gis-gisu euh, conseil constitutionnel conseil constitutionnel nag gannaaw coow li nga xamante ni nii euh, juddu na ci bi mu joxee euh, xalaatam ci mandat bu njiiti réew mi ñu jàpp na nag coow la loo xamante ne bari na lool lëmbe fi mu ne nii conseil constitutionnel ñu yegg si si beneen yéenekaay muy euh, direct euh, info waxit euh, ci révision constitutionnelle bi ci atum 2016 lu jëm nag ci wàllu financement yi ñeel parti politique yi loole yëpp doon na ay coow finance ñu jàpp nag ne parti politique yi anam yi leen di financé ak mouvement citoyen yi nekk na loo xamante ne war nañu ko xoolaat Babacar Ba bu forum des justiciables moom ci kàddoom nee na nag mbirum Lamine Diack waroon naa tax kii di njiitu réew mi Macky Sall di sëgg financer euh, parti politique yi ci euh, Sénégal ñu yegg si si beneen yéenekaay muy euh, Grand Place Grand Place nag wax fi mu ne nii ci coow li jëm moom it ci ay Tall Sall ndax ñu bari ñoo xamante ne dañu fare ci parti socialiste ñoom ci seen gis-gis ay Tall Sall dañ koo war a dàq bu ñu sukkandikoo ci maître Moussa Bokar Thiam nee na nag moom fi ne nii ànd na ci ñu dàq ay Tall Sall ak mboolem koo xamante ne dangaa nekk ci parti bi di wax naka sudul noonu Abdoulaye Wilane moom nee na kii di ay Aïssata Tall Sall booy xool sax tekkiwul dara ci parti socialiste ñu yegg si si regard regard nag moom daal di wax ci candidature euh, faluk njiitu réew bu Sénégal ñuy mu daal di samp nag ab laaj muy kii di Pape Diop moom lan lay peser maanaam euh, fan la poids yem daal ci jongante yooyu nga xamante ni war nañu ko amal ñu yegg si si beneen lib euh, beneen yéenekaay muy libération libération nag moom daal di wax ci banque bi di SGBS nee nañ nag fi ne nii nag mi ngi ci tànk ki nga xamante ni moom mooy sayt Taraf ndax dafa am ay créances yoo xamante ni euh, fayu ko ñuy wax nag te ab cube jumbo boo xamante ni jar na ñaar fukki milliards loolee aju ci créance yu ñu fayul ñu yegg si si beneen yéenekaay muy euh, Zoom info Zoom info nag daal di wax ci xalifa Sall mi nga xamante ne nag dañu jàpp ni nguurug Sénégal daf ko piégé euh, ci place de l'indépendance ñu yegg si si le populaire le populaire nag daal di wax ci contrefaçon yi nga xamante ci wàllu ko euh, faux billet loolee mu nekk nag ab euh, koppar ñu xayma ko daanaka ci ci lu baree bari mën nañu wax nax euh, ne ëpp na benn milliard loolee nag gannaaw ab opération boo xamante ni ñi ngi ko doon amal ci alxames yi ca une heure du matin bi mu jotee ca parcelle la unité vingt 26. ñu yegg si si euh, témoin moom sax la ñuy jeexalee mu daal di àddu nag ci euh, référendum bi coowal waaw li coowal déet li mu mel ni nag machine de guerre bi fi mu ne nii Benno Bokk Yaakaar daal na ci sóobu Macky Sall nag nee na mes détracteurs vont vont euh, dans l'agitation stérile bu nu ko déggee nag mooy mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la àndal dinañ def seen kéemtalaay kattan Amath Dansokho nee na nag moom fi mu ne nii campagne bu mujj la Tanor tamit moom ci xët bi wax na ci seeram euh, bu ñu dee seet sax ñoom li ñuy wax teguñu ko fenn maanaam ñi nga xamante ne ñoo fare ci kujje gi euh, di xeex nag ngir référendum boobee askan wi mën caa wote euh, déedéet lii moo gënoon fees Pa Aziz ci yéenekaay yi. Adja Fatou Kiné jërëjëf defe naa ne météo bi tamit yore nga ko foofu ba ñu xam ban heure mooy jot ndax tey jii ni mu ndax dina tàng wala dina sedd. mi ngi noonu ni nga ko waxee météo bi kon mi ngi nii ñu daal di wax nag doore ko ak Ndakaaru mi xëy ak 21 degré Saint-Louis 19 degré Podor 20 Matam 22 degré Linguère 21 degré Diourbel 20 degré Kaolack 20 degré Tambacounda 19 degré Ziguinchor 18 degré Kolda 17 degré euh, Kédougou 18 degré euh, bu ca kanamee dana gën a tàng ndax Ndakaaru dana dem ba 27 degré Saint-Louis 33 degré Podor 37 degré Matam dana gën a tàng ndax dana dem moom it ba 39 degré Linguère 37 degré Diourbel 37 degré Kaolack 36 degré Tambacounda 35 degré 35 degré Kolda 36 degré Kédougou 36 degré lu jëm nag euh, ci géej gi ak euh, nañ jàpp ni ndox mi moom daal dina yéeg loolee ca 4 heures du matin la woon bi mu tegalee juróom fukki simili ba ca topp 17 heures lay doon bu tegalee fanweeri simili ndox mi dana daal di wàcc loolee 10 heures lay doon bu tegalee juróom fukki simili ak juróom ba ca topp 23 heures bu tegalee juróom fukki euh, simili waxtu yi nga xamante ne nag moom moo dàq ngir dem géej ci suñu mbokk nappkat yi nañu ko jàpp loolee 9 lay doon tegalee fukki simili ak ñaar jàpp 11h bu tegalee fukki simili ak ñaar 21h ci guddi tamit bu tegalee fanweeri simili jàpp 23h bu tegalee fanweeri simili jant bi nag daal di nay euh, fenk loolee ci 7h la bi mu tegalee ñaar fukki simili ak juróom dana daal di sow bu 19 jotee ba tegal fukki simili ak euh, juróom-ñetti kon xibaaru jaw jàngoo. xibaaru jaww jàngoo Fatou Kiné Fatou Kiné xanaa déglu nga euh, xutba tey bi léemaayu tey mu sas Mor Thiam ci nit da war a dafa war a sant yàlla sànni kàddu auditeurs dina tegle bulletin bi cant gi loo ci wax ndax nit dafa war a sant yàlla saa su nekk. waaw loolu moom wax dëgg neex yàlla sant moom euh, man ci sama gis-gis boobu boo meree da ngaa war a sant boo kontaanee da ngaa war a sant ndax euh, sant dafa nekk loo xamante ni dafa bokk ci ci ci ñun. dafa bokk ci jullit jullit war nay sant saa su ne ndax nee nañ sax sant googee mooy tax nag yëf yi di yokk. waaw ni ma ko waxee rek mer sant kontaan sant. dëgg yëg mooy waral sant sant mooy waral ndolent mbokk yi mi ngi noonu loolu mooy li nga xam ne moom la ñu indi doon ne dina ñëw 8 heures allah ñëwal nu ci li nga xam ne mooy yi fii ñu ngi toog ak nga xam ni mooy suñu jigéen saa su nekk ñuy ànd ak moom ajuma ju jot muy Adja Binte Diallo mi ci lambu diis bi moom lañ ko waxee parce que loolu foog ngeen ni ko bi moo demee noonu kon Adja Binte maa ngi lay nuyu bu baax euh, Abdoul Aziz di ñaan nag euh, lam bi gën di diis comme ni nga ko waxee xam naa loolu nga ma yéene di nuyu euh, Playboy nuyu sama xarit oustaz Pape Anne mhm. du nuyu ñoom off du nuyu euh, toute l' équipe de de Yeewu Leen les téléspectateurs également. <laughs> waaw ba Adja Binta ñu ngi doon ci cant nit xëy suba am dara jotu ko mu war a sant. nit di liggéey di wut dara am ko te ay moom am ko war a sant diggante ma borom mooy ko muy nooy war a sant looj baat bu gàtt rek la ñuy dugg ci li nga xam ne mooy euh, xut bu bis bi gàtt xel ak euh, ñàkk gëm suñu borom weesuwul li nga yeewu suba teel say cër dara manqué wul feebaroo nga teg sa tànk bi ci suuf te newa alhamdulilah rabbil alamin ndax am na ñu ko bëgg amuñu ko ñu ngi tëdd ci hôpital yi mënuñu dara dañ koy defal kon defe naa ne jullit bu yeewoo buy tëdd dafa war a sant bu yeewoo nooyi waat dafa war a sant suñu borom. dëgg la jërëjëf Adja Binta ngi noonu bi ci lambu diis bi kon mbokk téléspectateurs yi ñu dem ci li nga xam ne mooy ba bis bi dellu siwaat ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa eh, jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam di ñaan jàmm yàlla na yàlla na nekk ci mboolem jullit ñi. fépp fu nu mën a nekk ci àdduna di nuyu waa eh, télé bi nga xamante ni ñoom ñoo ñu dalal di leen yàlla leen yàlla yokk barke ci liggéey bi ñu def ndax ñu ngi tasaare lislaam ci moyen bi nga xamante ni moom la ñu moom. Ah, tey nag ñu ngi ñëwoon di fàttalante ak mbokk yëpp ci ahamiyatu salaam fil islaam eh, importance su jàmm ci lislaam bu ñu waxee importance su jàmm ci lislaam rek euh, ñu ngi ci namm importance am ci suñu société ci suñu dundin suñu nekkin ndax jàmm euh, dafa nekk baat boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala mi ñu sant ñu sàlloo ko nekkoo ko moom yàlla dafa bokk ci ay turam baatu jàmm yàlla moo wax ci alquran huwa allahu alladi laa huwa aalimul xaybi wa shahaadati huwa arrahmaanu arrahiim huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquduusu assalaamu almuminu almuhaymin alazizu aljabbaaru almutakabbir subhaanallahi amma yushrikun kon yàlla ci ay melokaanam dafa am ci ay yooyu ñu tudd léegi benn tur woo xamante ni turu jàmm la moom mooy assalaam yàlla ni mu tuddee baat bi jàmm moom noonu la tudde jàmm kon nag moom yàlla subhaanahu wa moom mi ko tudd digal ñu ko kon baat boobu yitteel na ko kon dañ ko war a dunde ci suñu biir société yonente bi sallallahu alayhi wa tam wax ñu ci lan lu mën a sabab suñu aljana ëllëg yowmal qiyaam ba pare wa nekk tam màndargay ngëm yàlla yonente bi sallallahu alayhi ni laa tadxuluuna aljannata xatta tuminu wala tuminu xatta taxaabu wala taxabu ala adullukum ala cheyin ida faaltumuhu taxaababtum afsu salaama baynakum yonente bi salaa salaam dane ni du ngeen dugg aljana lu dul da ngeen a bëggante lu dul da ngeen a gëm lu gëm lu dul da ngeen a bëggante xanaa duma ma leen tegtal benn mbir boo xamante ni bu ngeen ko defee di ngeen bëggante mu ne dangeen di tasaare euh, jàmm tasaare nuyoo ci seen biir kon Euh, jàmm jooju yàlla wooñu ci yonent bi sallallahu alayhi wooñu ci mais sunu dundin daf koo aajowoo maanaam nécessité la mante ñàkk ñu dund sans jàmm rawatina nag sunu société bokk na ci importance yi jàmm am ci biir société bi mooy dafay jur li ñuy tudde cohésion sociale al wi'am al ijtimaai tant que jàmm amul ci biir cohésion sociale du am ci domaine yépp ndëkk jàmm jooju rek moom moo mën a tax ñu mën a dund ci jàmm socialement ñu mën a dund ci jàmm politiquement économiquement ci domaine bu mu mën a doon bu ñu amul jàmm du ñu du ñu du ñu talloo la eh, ñaareel bi jàmm moom mooy tax eh, eh, ay suñuy relation mutuelle mën a continuer di exister ba keroog ñu fiy jóge ñu ngi dëgmal ay ay ay référendum wax ji bari na ci ci ci ci rajo bi wax ji bari na ci ci ci ci ci télévision yi ku nekk ngi wax te nañu bàyyi xel ndëg nii yàlla subhanahu wa taala moom moo ab dogalam ñun ñëpp ñi ciy wax ku nekk di ci wax di ànd ak xët xët euh, wax jooju du moom mooy moom mooy indi jàmm ji ju wax jooju moom mooy tax yàlla def li li mu li mu namm mais lii lii indi jàmm ji mooy ku nekk li muy wax ci jàmm mu dunde ko mu mu jëfe ko ñu ñu bàyyi kàddu yu ñaaw yi ñuy weccante loolu dana dina indi jàmm loolu mooy kàddu yi nga xamante ni moom la ñu euh, waajaloon ñu ngi ñaan yàlla na yàlla may ñu dégg ak topp lu jub ci wax ji dañ doon nettali rek wax yàlla akub yonentaam lu ci dëng xay na ci ñun la wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant imaam Assane bu baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral ci mission bi mu taxawee ci seen euh, bërëbu liggéeyukaay boobu defal jàmm ña fa nekk ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf euh, imaam Seyni Gueye ci loolu nga wax muy jàmm xam naa dinañ ci dellusi bu ci kaname mbaay mbokk yi ñu ngi ànd ak ki nga xam ne mooy prof euh, Saliou Serigne Saliou Samb journaliste la mbokk taskatu xabaar docteur en sciences politiques administrateur du site teranga point fr point info euh, sëñ Samb xam naa ni li ngay sànq ba tey li tax bëggoo toog parce que joxagul la ndekki euh, ñu ngi lay nuyu bu baax ma bàyyi la nga nuyoo. waaw ñu ngi leen di nuyu ñu ngeen ñëpp di leen siyaare ci bisu tedd bi di am mbégte ndax xam nga daara ji moom dañ cee bokk moo tax ñu fi woowee dañuy sawar yi loolu pour teew si waaw jërëjëf kontaan lool ci liñ la woo nga li nga xam ni mooy euh, sunu émission ajuma euh, sëñ bi ñu ngi ci tey ji euh, docteur nga en science politique ñu ngi ci wàllu politique tey ak coow li am ci réew mi muy affaire référendum bi ñuy jaa ngi nii non jaa ngi nii euh, yow ban jàngat nga ci am waaw loolu li ma ko jàngat rek mooy day wane ni démocratie Sénégal mi ngi dund ndax wax dëgg yàlla boo seetee fii Afrique toll ak yenn réew ci àddina bi sax ñu ngi ci tolof tolof yu bari ñu ngi ci problème yokku mandat ñu ngi ci problème élection ñu ngi ci problème d'évolution monarchique yenn réew yi sax ñu ngi ci xaw a jege lu mel ni guerre civile yal na ci yàlla musal. Sénégal nag dund ba démocratie euh, démocratie na àgg foo xam ne nii am na deuxième alternance ndax xam nga première alternance bi amoon 2000 dafa gën a consolider démocratie Sénégal. wane ne ay la éwenkat coow lu mën a amit Sénégal jàmm rek lañ xew. ndax yéen ñëpp ngeen fàttali ko élection 2000 yi am nañu jàppoon réew mi day tàkk waaye yàlla def jàmm Abdoulaye Wade falu ñu dem ba mu am fi fukki at ak ñaar. réew mi tam ci moom doyal ci moom 2012 it ñëpp jàpp ne réew mi dina tàkk waaye sénégalais it joxe waat beneen leçon doyal ci Ablaye di jële ko fi indi Macky Sall Macky boobu bi mu toogee ba léegi mu ngi jàkkaarloo opposition c'est normal nag ah léegi-léeg mu bëgg a jëm fii gars yi ne fii lañ jëm ñu dem ba nga xam ne nii moom bëgg na ne dafa indi référendum ngir maanaam déglu askan bi hmm. ñaar laaj jàng mooy euh, fonk goo xam ne nii moom Macky Sall ak ñu ko fi jiitu fonk nañu réew mi bay dellu si ci moom di ko laaj kàddoom mooy référendum ndax référendum boo gisee mu am solo mooy réew mi la ñëw laaj leen ne leen dañoo bëgg ngeen tontu ci waaw wala ci déet kon am na foo xam ne teg nañ fa teg nañ fa réew ñaareel bi mooy stabilité bi nga xam ni démocratie Sénégal am na ko ndax ni ma ko waxee léegi fi mu ne nii Sénégal beneen problème la ñu am waaye amatuñu problème élection donte nag kujje gi ñi ngi accuser pouvoir bi naan daa bëgg a fraude waaye loolu c'est normal seen rôle lañu nekk moo xam journaliste nga wala ngay gëstu ci wàllu politique nga xam ne Sénégal problème élection problème fraude mënatu fi am li ko waral mooy yéen TFM yéen yeneen ak ñeneen confrères yi fi nekk saa élection amee fu ci nekk yóbbal ngeen fa seeni i ndaw. ñu toog mel ni ay scrutateur di xool bureau de vote bu pare buñ ko affiché bala mu am ñaari minutes ñu téléphoné la ko en direct. kon fraude mënut fi am Sénégal élection bu fi mën a am ci transparence la jàll ki nga xam ne gagné nañ ko mu nangu ki nga xam ne gagné na daal di falu kon daal référendum bi ni mu ko gisee rek mooy day wane ne euh, démocratie Sénégal mi ngi dund. am na vitalité boo xam ne atteindre na ko ci problème maanaam atteindre na point de non retour mënatuñoo dellu ginnaaw fu ñu continuer rek. Mhm. loolu nag li muy tekk mooy euh, homme politique seen bopp nag war nañoo xoolaat bopp xam ne askan wi seen bopp dafa mel ni ñu gën a ñor ndax man yaakaar ne booy xool Sénégal euh, politiciens yi seen bopp léegi dañu xaw tardé par rapport à askan wi askan wi lu nit ñi mën a wax ñoom seen bopp gis nga bu ñu demee sànni seen xob dañuy bokk ànd ak ñëw naan ataaya bokk añ bokk reer dem siyaara ji Tiwaawan dem Touba dem kër Maam Limaamu dem ci kër jàngu bi gisuguma man problème boo xam ne nii homme politique mën nañu ko indi moo tax jamono ci ginnaaw xawoon naa tiit bi ma dégg ñuy wax wàllu nationalité nga xam nationalité bu ñu ko bàyyee moo indi sénégalité xam nga Côte d'Ivoire dañoo bàyyi mbir moomu law waaye nag alhamdulilah bi nga xam ne ñoom seen bopp ñu koy wax dem nañ ba mu yàgg <coughs> ah duñu kat ndeket ak bu yeboo ñu teg ko ci suuf ne gisoo waxatuñ ko sax ndax Sénégal li ma lay wax euh, boo gisee euh, démocratie a xam ne ni joué nañ ci beneen rôle mooy yeneen force sociale yi nga xam ne nii bokkuñu dañoo doon ñoo xam ne nii ay euh, mbiru tradition lañ am lañ gëm maanaam wàllu culture gis nga Sénégal kilifa diine def nañ fi loo xam ne nii kenn mëntu ko yàq Sénégal ñi nga xam ne wàllu aada ak cosaan def nañ fi loo xam ne nii kenn mëntu ko yàq moo tax xam ne politiciens yi waxuma ne dañoo war a dem dellu ginnaaw topp euh, leen gën a déglu ndax démocratie ba agsee fii ba am benn stabilité nañ ci lu bari ndax kat bu fàtte ne ñoom kilifa dina yooyu ak ñiy défendre aada ak ñoom lañ gën déglu que homme politique moo xam ci pouvoir lañ nekk moo xam ci opposition Binta. Euh, euh, sëñ Saliou man euh, lu ma bëggoon nga nga expliquer ma expliquer ko les Sénégalais aussi mooy pourquoi cette précipitation parce que dañu annoncer rapidement le que le référendum va se tenir le 20 mars. à partir du du Burundi du de Bujumbura on annonce que dina am dialogue autour de de la question ñu jékki saay ñëw on amende le projet. Euh, ci conseil euh, conseil des ministres spécial. jékki saay ñu ne kon amatul dellu ginnaaw. lu tax précipitation bi am dans une démocratie qui se respecte je pense que dañu war a am dialogue politique décision unilatérale yooyu précipitation yooyu kes ce qui l'explique waaw sax na bi na jàllo laaj bi leer na am na solo waaye bul fàtte ni euh, président Macky Sall président de la république la waaye nag homme politique la mm. nekk ci kaw parti loolu muy tekki mooy am na agenda état waaye nag am na agenda parti état moom ñu koy doxal ci Senghor ba léegi état bi ngi continuer waaye nag dafa nekk homme politique nekk ci kaw parti parti boobu nag dafa am ay renseignement yu jóge ci moom yu ñëw ci moom yoo xam ne nii yenn service de renseignement généraux ñoo ko jox yéen itam ay structures yu mu def ci biir parti bi ak sax yeneen yoo xam ne nii officier la ñoo ko koy indil loolu nag bu ñu ko tegee ci taabalam barki dem am benn confrère boo xam ne nii yaakaar naa fii sax la ko waxee ci yéen dama ne benn sondage boo na ko waaye daf koo nëbb hmm. maanaam war du jël P du jël 2 du jël 3 quatrième position la du dem sax deuxième tour loolu am na wala amut xam nga jaaxal na ko. Mhm. boole ci xam nga rassemblement ñu ngi fépp. na sax ñu ne ñu ngi ci yi. am na ñu sax ñu ne ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci kër ku jëy. mbaa néewlu ah, fi nag <laughs> waaw ndax fi nii boo duggee taxi boo duggee car boo duggee njagajaay ku xam ne ñoom ña fa di déglu. Mhm. Mhm. université bi étudiants yi am na ñoo xam ne bu bu ngoonee dañuy dem yóbbu seen bulletin de renseignement. yëpp bi ñu koy remonté tax na Euh, Macky Sall ak ci ñi ko jàppale mu wóor leen ne euh, askan bu leen weddi wutit am na ñu bëri ñoo xam ne xaw nañoo jaaxle. Mhm. xam nga jaaxle boo ko boo ko teg bi ma def mooy ba léegi man askan wi am na ñoo xam ne wóolu nañu Macky Sall ko peut-être ça n'engage que moi mais dañoo xaw a jaaxle dañoo comprendre maanaam explication ak communication bi nga xam ne moom la gars yi war def moom lañu defagul. Mhm. léegi nag bi ñu demee ba am yooyu renseignement ci seen loxo ñu ne ah gars yi mbir am na kat ndax dafa mel ni askan wi bu ñu weddi wutit jaaxle nañ comprendre wuñu mhm. ca bu ñu demee élection 2017 am na ay risques léegi nag nañ fexe ba def noo xam ne nii danañ dàq élection yi ca duñ perdre la fas loolu nag c'était délicat. Mm. loolu moo tax Macky Sall nekkoon ci équation bu xaw a jafe ndax bu leen fàtte ne dafa def promesse jël engagement. te gis nga camp bi li ñu fàtte mooy Sénégal ak Afrique civilisation de l'oralité lañ nekk il faut que homme politique yi xam ne. ku xas gis kàddu wax ba noppi. Mhm. gis nga la ngay bind conseil constitutionnel mais ñaata nit ñi ñoo xam conseil conseil référendum bi ñuy dem sax ñu naan fukki pañu juróom la mhm. ci référendum France ga ñu ko jàngal de dañ naan ñaari question la mhm. maanaam benn question la waaye tey yu ñëw fukki pañu ñeent ñu ngi nii ba fukki pañu juróom askan wi xamuñ sax loolu ah. non seulement xamuñu ko mais taluñu ko ndax nit ñi béykat yi ñu ngi fexe ñu jaay seen gerte mu université ba ma jóg barki dem étudiants yi amuñu fu ñu jàngee euh, gi yaram yi li lépp day priorité ñu ne ko fa yël banding ñëw nag di wax wàllu référendum day mel ni kon de l'autre côté donte nee naa léegi day wane maturité démocratique waaye nag benn côté tam day wane ne am na ak déphasage boo xam ne nekk na diggante homme politique yi ak ñi nga xam ne nii ñoo nekk ñoo nekk ci ñooy peuple bi euh, ma ma daaneel ci précipitation bi la ko waral ba léegi rek mooy gis nga euh, wax naa léegi ci agenda politique bi mais Macky Sall wóoru na ko ne nii day gën a am jafe-jafe tam ak communauté internationale ci wàllu arrestation de Karim Wade ndax bulletins yi ñu ngi ko jox ba ci bitim réew loolu moom lu wóor laa ci am. Mhm. ne nañ ko nag problème nga nar am. parce que fi mu nii gis nga groupe bi jël nañ décision ci ne fu ma koy ko fa fekk foo xam ne ndaje am na ci bitim réew danañ fa xamal ne ko ah, jàpp nga doomu jàmbur kat ci tegu ko ci gis nga euh, gars yi fi ñu juumee foofu dama ne bu fekk ne dañoo war dañoo bëgg euh, dañoo bëgg a laaj ay compte mënoon ko jaarale feneen xam te ni Karim Wade buñ ko audité woon ci ministère du ciel et de la koy waxe wala wala annonce yi kon Sénégal yi dañ comprendre mm-hmm. waaye dañuy xëy ñëw ne ko dañ lay jàpp bu ñu ko jàppee yóbbu ko ne a jaaxal euh, euh, loolu di ko ci di ko di ko ci xaxaat léegi nag mu wóor ko moom ci plan intérieur am na problème ndax parti am fi nii bu ñu fàttee aussi ne APR malgré li ñu di wax lépp lépp nekkul parti bu dëgër mm-hmm. ndax bokk na ci jeunes yi Macky Sall Macky Sall dafa def coup de euh, naka lañ mu nekk coup de maître nekk candidat rek jàll na mérite nag boo xam ne nañ ko ko reconnaître mhm. waaye nag ba tey APR nekk pour parti ñii gëstu yi wala politique ñëpp xam nañ ko parti bi gën a implanté wu Sénégal ku ne xam nañ ko mooy PS mhm. ok depuis le soir ba léegi foo dem ña fa ay militant xëy na PDS moo ci topp waaye PDS ñi ko Abdoulaye Wade yore rawatina at yu mujj moo ko yàqal lu bari mhm. ko fu ni nii implantation sur le plan national ba Fatick da nga xam ne fa la Macky Sall cosaanoo sax dëgëragu fa léegi nag loolu yëpp nag moo tax Macky ni kon léegi naa seet fan la ma gars yi di udul benn poroxndol ma jaar fa doo perdre la face ma daax daax élection yi ki nga xam ne nag moo ko génnee ci mbir mi te dugal ko ci beneen problème mooy Ismaïla Madior Fall suñ professeur la moo ñu jàngal faculté droit ba nga xam ne fa la defee suñu doctorat bi mu am mooy même étudiant yi ko jox dañuy ubbi benn page ne la lii moo ñu ko jàngal moo ñu carrément conseil constitutionnel avis lay joxe ci avis bi maanaam liyul président de la république tey mu ñëw taxawaat ñëpp di ko dégg mu ne décision la lii na président la république étudiant bi laaj ko ne ko waaw man Ismaïla bi ma jàngaloon lee laay gëm wax nii moom euh, nga dëgg tëj fël googu ñu ko wutal mooy tëj fii mu fël ne le moom loon ko wutal mais man dama am benn laaj parce que nit fii fii fii li nu ñaari laaj laa koy def mm-hmm. bu njëkk bi mooy ñun li nu xam Sénégal mooy euh, dana lay jàpp da def dara ñu jàpp la hmm. waaye kaay ñu jàpp la ba pare dégg ko seet li nga def kenn musu ko fee xam beneen bi des mooy nit boo ko dee laaj hmm. ci dara danga koy laaj lu mu xam hmm. te askan wi xamagunu ndax loolu wax expliquer parce que quinze points yi fukki poñ ak juróom dafa jafe pour nit ki toog rek nga koy wax mu jàpp ndax mënul woon na communication boobu faram fàcceel nit ñi ci lan lañ bëgg ñu wax ci te am na ci yu am solo yu nekk ci biir fukki poñ yi ak juróom yoo xam ni am na solo goo xam ni réew mi askan bëgg nañ ko lu mel ni parti politique yu bari mhm. yu mel ni candidat indépendant yi koo xam ne day xëy nekk ci koo xam ñëpp xam mu bëgg laaj baat ba waa dëkk ba yéene ko ko ku nekk ci politique bi ñëw jël ko yooyu bokkoon na ci li nu war a mën a wax askan wi ci wàllu ci seen li nu làkk ndax nag karawaatu comme ñu nuy def di làkk ak wii ak non nit ñi taxul ñu xam nit ñi da leen di wax ci baat langage bi ci euh, làkk wi nu xam ñu bëgg a xam li nga wax pour boo leen bëggee laaj seen xalaat ci lëf ñu mën na koo jox ci anam est-ce que xawaroon ni communication bi ci wàll woowu dafa sooxe bu baax a baax a baax seen wàll seen wet xam nga communication président de la république ak APR de façon générale moo nekk talon d'Achille du régime loolu ñëpp wax nañ ko gis nga ñi nga xam ne ñoo nekk ci service communication du ñoom ñen la ñu mettre en cause parce que ku ci nekk ci ñoom wax dëgg yàlla kilifa nga jàngal la nga war a jàng sooy déggee ku ne xam ne ne ku yaru la ku jàng la ci ku am éloquence la am na rhétorique mën na wax mm. El la mm. Mm. ñoom Mamadou ne nii waaye problème bi nga xam ne nii moom la Sénégal yi gis mooy amul efficacité loolu lu ko waral gis nga li nga wax léegi ñëpp nangu nañ ko waaye fi mu nii tey boo génnee ci mbedd mi néew na tey ku mën a défendre ni Macky Sall kat na logement bi Macky Sall kat euh, yokkoon na salaire ci wàllu impôt Macky Sall def na couverture maladie universelle euh, carte sésame yooyu yëpp mm. ñoom seen bopp communication euh, service communication ñaari problème la ñu am benn yi mooy seen mbir dañoo déggoowul ndax bis bu nekk yaa ngi dégg ñu sànnante ay mbir ba barki démb sax dégg naa ay saaga day war lañ fa lañ fa lañ ci seen biir mm-hmm. ñaareel bi mooy dañoo am Euh, beneen problème boo xam ne conseil Macky Sall yëpp am nañ ko mooy en face de dañoo am adversaires nekk ci biir palais ci ñu ay politique lañ maanaam waa nga xam ñi nga xam ne ñoo appareil appareil appareil moo leen ñor mm-hmm. ñoo noonu ay politiciens de carrière ñooñu nga xam ne ñoom seen avantage rek moo leen tax a ñu bàyyi technocrate technique techniciens yi mën a liggéey loolu moo a feeñ dañoo nekk à l'étroit dañoo nekk à l'étroit bàyyi wuñu leen ñu liggéey ci itam kilifa gi nañ ci wax dëgg mooy léegi-léegi Macky Sall am ñu bëri ci ñoom dañ leen wax ak ñoom waaye ci pet dañ leen ah kilifa gi kat def nañ suñu étude def nañ suñuy mbir jox nañ ko ko waaye daf mel ni ko dégloo ñu ko ndax ci dolli mooy euh, problème de ciblage ndax communication ku ko wax wax ciblage comme ni nga ko waxee léegi askan woo xam ne nii mais boo génnee TFM ji boo génnee Almadi gi génn wala nga àgg banlieue bi mais ñu bëri seen bopp jànguñu si jànguñu ñu seen ñu bëri seen moo tax ne nii rajo télévision ñi jàng communication xam nañu ñu ëpp avenir presse écrite parce que rajo télévision ñi ngi wax rawatina làkku askan wi muy olof ak séeréer rek tukulóor rek yeneen ñi ndax askan wi ñu li ñu déglu ndax xam nga béykat bi nekk ci tool ba moom yor rajoom di déglu mu mu man loolu la xam gisaguñ béykat wala boog euh, bëriwut béykat bu bay mu yàgg mu toog mu toog di di lii di journal mais en même temps mën na dégluwaale moo tax rajo li naan euh, le médium roi mooy rajo léegi télévision tam mi ngi fi bëgg a àgg ndax télévision bi nga xam ne ni jamono yi ci ginnaaw mi ngi percé TFM yéen a ci rôle bu am solo ñu ngi leen ci félicité. merci wóor nañu leen ne euh, langue nationale dafa am solo. fi mu ne nii gis nga euh, man damay def léegi comparaison xutba bi ngeen jël léeg-léeg suñu imaam yi sant taal di ko def mais taux d'audience bi yéeg na ci lu bari. parce que damay jàngale ci benn école dama ko defal publicité fii waaye étudiant dañu may wax ne ma ñoom gis nañu seen parents yi bu jotee dañuy dem foofu déglu ko ndax daf leen a ñor mu wóor ma insha allah ci séeréer yi ak ci yeneen làkk yi léegi nag service communication noonu la waroon def comme question cruciale yi nga xam ni askan bi yëpp demee ci télé yi mais bu ñuy wax da yaakaar ne mais surtout Molière lañ <laughs> même ci biir olof sax bu ñun li ñuy wax ci olof sax ñu ngi koy argumenté ci français di jàngal peuple boo nii daanaka moom ñoom jànguñu wala boog li ñu jàng lu néew la moo tax ma jàpp ne service de commune comme ni nga ko waxee àlli kala ji mooy dañoo waroon fexe ba wala jënd ay temps d'antenne parce que am ko ci état bi la ñu nekk dem fekk askan wi def communication média communication hors média communication multimédia événementiel porte à porte xamal askan wi kat ne leen seen lakk yi nga nga xam ne moom ngeen di wax la ñuy wax ak yéen président lii la bëgg bu loolu amee ñu fexe ba réduire question yi comme ni ñu ko waxee jël fukki question ak ñeent donte am na ci yu am solo lool bokk na ci député yi nekk euh, maanaam Sénégal yi nekk bitim réew mën a am seen député ak trois de la décentralisation bi ñuy gën a euh, gën baaxal statut de l'opposition ñu xam fi ñuy kam interlocuteur waaye yëpp nii nit ñi xamuñu ko waaye nag li ko waral tam mooy président ci boppam dafa jàppoon ne maanaam Sénégal dañoo jàppoon ne référendum bi day tourné ci benn point bu essentiel mooy jëlee mandat bi ci juróom-ñaar indi ko ci sa raison d'être moo tax ñu boole ko sànni ci àll. sëñ Samba defe naa ni waxtu bi dafa jot waaye fi may jeexal rek mooy communication bi parce que communication dafa am solo. Mm-hmm. kii communiquer dafa am solo mais dafa am solo. te bu fekkee ni da ngay politique donc communicant bi aussi moom it dafa war a nekk koo xam ne buñ ko waxee ñu mën ko gëm mais bu fekkee politique bi mooy ñëw di waxaat gëm bi day xaw a des te nit ñi yaakaar gi day xaw a day xaw a yàqee ma bàyyi la nga tëj ah, ma ma dolli ci euh, di laaj une dernière question à Serigne Saliou mhm. euh, lu tax pouvoir public yi aw Sénégal di am un problème de priorité parce que gis nañ ne aussi université bi yëngu na wax nga ko sànq. le secondaire commencé na. année bi mun na am perturbation bu bu terrible. Euh, te ñuy jël ay milliards di ko dugal ci ay élections référendum te mënoon ko jaarale feneen. lan moo lan moo waral ñu am un problème de priorité. waaw xam nga li may wax rek Sénégal opinion publique bi ñu ngi koy waajal maanaam opinion nationale moo ñorul yéen a ñor ji bay imposer politique yi seen agenda. Mm. xam nga boo demee ci réew développé euh, ñoo naan président fii xam nga Binta barki démb am na fi ñaar yoo xam ne nii ba léegi sénégalais yi dama yaakaar ni ñi ngi nelaw ngeen baal ma ci baat bi juróom-ñaari nit faatu nañ fa ci port Dakar si déwén waar déggoo président de la République wax ca bu France benn nit mooy de il faut que François Hollande taxaw ci dolli mooy directeur de port yi nga xam ne moo waroon a indi respect ay ay ay explication mu ngi wër fu nekk di yaataa ñoom di joxe xaalis te kenn waxul dara mhm. nga xam ne kon fi ni suñu opinion nationale moo ñoragut yi mhm. ñu waroon laaj ay compte yu bëree bëri mais ñi ngi dégg fi naan président de la na réew mi mais lu tax ñoom ubbi ñu enquête pour xamal mbir mi fan la commencé fañ la teeru lu daal li koy li ma ci tontu rek mooy. askan wi seen bopp ñoom ñoo xaw ñoo xaw des ci waaye nag mi ngi ñëw. bu ñu fa àggee incha allah danañ imposer suñu autorité yi. Mm-hmm. xamal la ne ñoom seen agenda politique yi ñu bëgg. Mm-hmm. maanaam falu rek toog. ki leen neex jàppale ñu leen neex ba jóg dem dañ àgg foo xam ne askan dañu imposer agenda ñu leen suñu priorité mooy santé suñu priorité mooy mbay mi mooy école bi ci boobaa insha allah il faut que am politique yi insha allah dañ ca parce que jërëjëf sa ñu bàyyi la nga la sant ma sant may moo tax ma koy kale <laughs> mais loolu merci beaucoup ci félicitations yi kon ci lañ jëm mbokku téléspectateurs noonu télévision Futur Média ajuma yeewu leen tey jii incha allah ñu ànd ak soxna ki Kiné dem ci li nga xam mooy information yi ñu doog a dellusiwaat ci plateau bi. jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbale ko ak ñi far ak waaw wii di front du oui ñoom nag samp nañu seen directoire de campagne jiitu réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal fas yéene sol seen daal dugg biir réew mi dem fa mu gën a sore bu jaree sax ñu fëgg buntu kër yi ngir xamal leen solos référendum boobee la ñu bëgg nag moom mooy am ndam ci waaw bu ñu ca yeggee loolee ñu jàpp ko ñaar fukki fan ci weeru mars bi ñu dëkkmal niki démb nag la ñu ko doon nas ci ab ndaje di saprera Benno Bokk Yaakaar taxawal directoire de campagne dëgmal référendumu 20 mars 2016 ci gis-gisu président coalition boobu référendum bi dafay dëgëral démocratie bi teg ci dooleel état de droit. en installant le présidium. ak taxawal bi ñu taxawal directoire bi dañuy engagé wu ci dëgëral suñu démocratie waaye tamit suñu état de droit te nag loolu moo nekk ci xolu askan wi. des aspirations profondes de notre président coalition Benno Bokk Yaakaar ci ndaje mi àddu àdduna jëmale ci poñ bi ñeel laïcité te opposition bi bari lool lu mu koy ŋàññ chef de l'État xam na ne kujje gi dafa ñàkk argument moo tax muy def spéculation politicienne. ce nouveau droit dont on a voulu. droit yu bees yi opposition bi di ŋàññ dafa leer ci tex bi droit yooyu ñun xamle nañu leen ba mu leer nañ waaye kujje gi li mu bëgg mooy werante rek te indi jeexi jaaxa ci xelu askan wi heureusement que sénégalais yi ràññe nañu bu baax. et entraîner le pays dans une ivresse politicienne. taxaw temm ngir wii daal di gagné la benn bokk yaakaar fas yéene def coalition bi dina wër réew mi yëpp def ay porte porte ak ay meeting coalition bi di dikk opposition bi ab défaite bu ñu yeggee ci le 21 mars 2016. di saprera njiitu euh, PVD di Modou Modou euh, Serigne Modou Kara moom nag euh, fi mu ne nangu na ànd na ci ñu dàq li nga xamante ni moom moo di référendum bi teewul nag moom noppi na la wax ngir gunge ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi Macky Sall moom njiital PVD ni ko waxee Serigne Modou Kara waaye la mu àndul nag mooy ñu jël Touba def ko ab commune loole nee na àndu ci benn yoon ndax Touba dafa nekk dëkk bu spécial loole nag mi ngi ko xamle moom njiital PVD ni ki démb nag ci ab ndaje boo xamante ni ngi ko doon amal euh, dañ ci ànd maanaam ñu déglu ay kàddoom ak Yunus Diatta. man li ci sama gis-gis laay wax ba tax ma ni bu ma sañoon référendum du doon léegi dañu koy aj bi ci jiitu mooy dama defe ne dañoo fàtte ni Touba wërta doon commune. wax naa ko fu nekk Touba dañ ko war a jàppee ni makkata al mukarrama bu ñu fàttalikoo ni li ñuy def Touba bokkul dafa exceptionnel titre foncier la ci ko fane amul fii ci suuf amul fale ca kaw waxuma pour lu neex ma sàmba waxuma pour provoquer ma dem ba man dama bëgg ñu comprendre ma ci suñuy innovation mag samay gaay yi ñuy waajal mooy démocratie bu bees imaanu hurasi mooy constitution bu bees mooy laïcité bu bees bu tudd le bien commun mais à l'avenir néew ma ki fi nekk di yi ak ay collaborateur am dañu leen bi bundu xataal waxuñu lool su bëggee ñun ñu accompagner ko à cent pour loo gis dafa am démarche foo gis barab boo gis am na yoon wu fa jëm am itam façon démarche bu la fay jëmale bu déggoo amee ci suñu diggante ak ñoom dañuy nangu ñoom suñu projet de société bii ñu présenté leen ko lu ñu ci nangoo jël ngir boole ci seen programme ñu def ko bis bu ñuy jeexal ñu jéem a soutenir parti de la vérité am déet Euh, takk der yi nag amaloon nañu ab opération bu mag euh, fële ca Parcelles Assainies loolee guddik àllarba la jàpp alxemes teg nañu ci loxo nag benn waay fii la fekk baax ci biir réew mi di ab sénégalais ñu ngi ko jàppee nag ak ay coupure de faux billets loolee xayma nañu ko euh, ci benn milliard moom nag nee nañ ci ab réseau la bokk réseau boobee sax ñi ngi koy seet jamono ji aji bu li moom mooy commissaire bu Parcelles Assainies ñu teewlu ay kàddoom. Sénégalais bi nga xam ñu euh, fekk ci moom biig ci unité 26 de Parcelles Assainies ci une heure trente du matin euh, xaalis bu toll nii te lépp nekk bi yu bon euh, d'ailleurs saisir nañu dinañ saisir la BCEAO pour authentifier les billets en question même si de vue de en vue à vue yi nga xam ni billets yi baaxul pour les besoins de l'enquête pour ñu gën a mën a farlu ci sunu enquête dinañu saisir la BCEAO pour ñu pour mu prouver ñu effectivement ni bii yi baaxul du bii yi rek lañ fekk ci moom parce que bi ñu jotee information bi togg ko ba mu ñor ñu jàpp ko billet yi la fekk nañ ci itam benn paquet boo xam ne dafa def euh, poudre bu weex poudre bu weex boobu cocaïne la ñuy nirool mais mu cee mënuñu cee sori ndax euh, division police technique et scientifique bi banqaas bi nekk police te ñu xarañ ci wàllu analise ci ay produits yu mel nii ci xeetu drogue yépp saisir nañu ko te résultats yi pour ñu wax ñu ndax xëy la war a déet dinañ ci jot suba allah allahu rabbi du moom rek moo ci bokk ak réseau la waaye ci réseau bi bokk xam nañ ci koo xam ni Guinéen la jor nañu turam ak léppam euh, waaye jàppaguñ ko ndax moom dafa dafa dafa daw boo demee sax yëgul na jàpp nañu kii ñu wax euh, ci leneen mboolem euh, pàcc yu euh, seq secteur pétrole bi ak gaz bi ci Sénégal xaatim nañu nag ak pacte social loole ci wàllu jàmm la loole ci ñetti at yi ñu jëm ci lay doon nee nañ nag am na ay mbébét yu bari yoo xamante ni fi mu ne nii soobu nañu ci te lu nu bëgg nag moom mooy gën a dooleel seen secteur bi ndax képp koo xamante ne nii da ngay ngénte dinañ am ay indemnité yoo xamante ne nii daañu leen koo jagleel muy nag liggéeykat ya ba ci koo xamante nii dangaa quatorzième mois itam bëgg nañu koo indi lanu bëgg nag mooy tamit daal di sampaab syndicat bu mag syndicat général boo xamante ne dafay lëkkale secteur pétrole bi yëpp Cheikh Tidiane Dione patronat ak syndicat ñoom ñoo doon xaatim li nga xamante ne moom mooy pacte social bi ñu jagleel ñi di yëngatu ci wàllum pétrole ak gaz fii nii si mim réew document yi nag ñoom ñooy wane ne li ñu fas yéene defal ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy yëngu daanaka mën nañ ne sax seen gëneel la. am nañ augmentation de salaire yu nga xam ne 30 37 pour cent la yu nga xam ne ci eh, ci ci ci ci ci salaire ci salaire yi la ci ñetti at yi am nañu 200 000 francs d'augmentation euh, am nañ 200 mille francs indemnité de décès am nañu 100 mille francs indemnité de naissance am nañu 45 mille francs indemnité de logement. Mansour si daal di ñëw teew fekkee li nga xam ne moom mooy signature bi moom sax mu ngi wane lii di mbégte dem ba si yokk ne jeneen secteur dañoo war a mën a roy ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii pétrole bi ak waa gaz. kon nag tey ñuy rafet lu bu baax pacte bi wax na pacte bi ne ko ku nekk sàmm parce que pacte bu amee defe naa ne grève amatul place parce que nit ñi am nañ fu ñuy waxtaan te bu ñuy waxtaan lu mu jafe-jafe rek dinañu mën a fexe ba génn bii pacte nuroowul ak bële pacte parce que dañoo fexe ba tiire évaluer jafe-jafe yi ñu amoon ci pacte bële xam nga ñii ñu ngi ci seen deuxième pacte pacte bi gouvernement bi signé ak central centrale syndicale yi ñu ngi ci. at mu njëkk ci pacte bi. su dee nag ki nga xam ne moom mooy secrétaire général bu. CNTS FC kii di Cheikh Diop moom dafa gis ne secteur bi ñëpp lañ ci war a syndicaliser ndax sax loolu dafa nekk lu war. moo tax ñun dañuy jël suñu matuwaay en toute responsabilité pour que maillon secteur bi yëpp dara baña a des loolu moo tax ñu ne ñun ñëpp góor góorgóorlu ci ci syndicalisation bi parce que personnel station service yi kenn syndiqué gu leen société sénégalaise yi am na ci ñu des ci syndicalisation dañoo war a góorgóorlu employeur comme travailleur. pacte social ñu koy amal gannaaw bi ñu amaloon loolee nag nekkoon ci atum 2008 lu ni mel sax daal di nekk ay jéego yoo xam ne dañoo am solo ndax sax dafay dalal li nga xam ne moom mooy secteur pétrolier fii nii si même réew ñoom sax dañoo gis ni li am solo moom mooy ñuy wax ci loo xam ne dina nekk ak njëriñ ngir ñi di travailleurs yi. ñu di la jaajëfal Cheikh tijaan Dione ministre conseil bi di Youssou Ndour moom nag rafetlu na li nga xamante ne moom la ñuy bayee ci biir réew mi ndax dafa jàpp ni ab mbay képp moom mooy mën a tax kon réew mi daal di dox rawatina li nga xamante ni moom la ñuy bayee ci biir réew mi dañ ko fee war a bayee teg ci di ko dundee nee na nag la ñu war a moytu moom mooy di jaay ay euh, produits yoo xamante ni ca biti réew euh, lay euh, jugee mi ngi doon nag amalaab nemmiku fële ca salon international de l' agriculture bi ñu jagleel wàllu mbay mi te di ko amal ca diwaanu euh, France leerali ak astumbir ci bu Mor Xarma. cef kaak li ñu moom ñu fekk ko feneen ci xolu France lépp nag ànd ak musique kora bu neex ci nopp ci tool yi ba ci suñuy ndap senegale yi wane seen mën-mën mën-mën bu sakkan lool waaye tamit dal xel bu ñu doon séddale Afrique ku nekk ñu jox la benn pàcc Sénégal agriculture mooy nekk ak élevage kon nag dama ko gëm nekk moom mooy suñu moteur bi nga xamee ni que moom moo indi développement. dañuy faral di bàkkee ne ñun Sénégal dañuy jaay rek jaay produit bu ñëw ñu jaay ko produit bu jógee bitim réew ñu jaay ko produit ay commerçant waaye lii ku ko gis xam ne ni production am na fi sama xel dal na ci production bi nga xam ni moom laa gis. muy firndeel njëriñ li mu am ci suñu koom-koom jëwriñ ji gis ne faw ñu dëgg ci suñu tànk ak accéléré ndax mu yombal suñu suqaliku. bu ñuy wax autosuffisance di wax ci transformation produit di wax li nga xamee ni que moom mooy élevage bi production moo tax dama bëgg sénégalais yi xam na ne que il faut que ñuy produire il faut que pas ñuy taxaw ñeneen di produire ñu ñu leen koy jaay du ñu ay jaaykat ay jaaykat la ñu naam waaye ni ñu njëkkee si suñu yëf. bay ci sa wew tànk kon ku nekk. na gàlloo goppam. hésitation sax def ci am ndax ku seetlu bi président Macky Sall ñëwee ba léegi ñu ngi woo ñëpp ci ñu ñëw ci agriculture donc dem leen ci structure yi nga xam ne dañ ko teg Sénégal nañu dem foofu waxanteeg ñooñu dugg ci production. man sama wax tey du weer su production nañu dem bay yi bu ñu ko defee incha allah dinañ gis njariñ bi parce que bu dee dañu produire di denc suñu xaalis foofu di ko jaay ci réew ma di ko jaay ci bitim réew loolu mooy indi développement dellu ci mbay mi dellu ci càmm gi ndax bu ñu yekkee lu ñu moom ku ne xaj yi am loo sàqam yi cafka gi des sa génn asu mbenn ci bu cant ak ngërëm ñeel la xam naa lu jëm ci wàllu cafka yooyu moom jot nga kaa ñam ca diwaanu France mbokk yi tàggatoo yéen dig leen daje 13 ci beneen jotaayu xabaar ma bàyyi leen ak Pape Aziz Abdou Aziz mu yeeg yéen ci seen émission yeewu leen jërë ngeen jëf jërëjëf euh, Apulaay jërëjëf euh, soxna Fatou Kiné ci li nga xam mooy xabaar yi mbokk yi euh, ñu ngi fii encore jëm ci seen télévision Futurs Médias seetu askan wi ajuma ci seen émission yeewu leen tey nag moom xam naa ne di ngeen ko seetlu Alphie ñëwul demul marché moo tax gaa yaa ngi óbbali rek café gi dara ñëwul te fa yéene wu noonu ndékki waaye nag mag ñi ne noonu ku joxul dépense it doo dem marché ma defee ni Alphie xanaa daa jël dépense ba jaay wala mu puudaroo <laughs> ah oustaz Paban parce que defe naa ni Alfi tamit. absence dafa dafa xam naa coono yëfu jàpp dafa xaw a taw tuuti rek. moo tax ñëwul moo tax ñëwul waaw coono yi xam naa coono yi ñu koy ñaaral yàlla dëgëral ko mhm. may ko wér barki si la nag manqué nañu waaw ci lamb dis bi defe naa ni démarche it am na solo tam ku kuy xëy tool war a yóbbu ndékki comme albi dafa feebar ñu koy ñaanal mu dellu siwaat mënoon nañ ma jox waañ bi rek ma wan li moo mën a di waaw mais loolu moo war a am parce que bu fekkee alfi ñëw fii ñoom madame Ndiaye ak ñoom Joséphine ah, Aïssatou Diop Fall war nañu mën a ñëw ah, ah. fi ñëw <laughs> mais nunu indi madame Ndiaye madame Ndiaye war naa mën a ñëw bu fi alfiné wu mu remplace ko ñoom ñëpp dañ fi mu ne nii tey ji lañ war a Aïssatou dara mënu ko fi ne nii Bouba Ndour ci la waroon a testé gars ndax li alfi jàngale bis bu ne ci télévision bi ndax gars yi mokkal nan ko Bouba moom dafa waroon a indi madame Ndiaye wala mu indi fi Joséphine wala Gagne Siri waa waa Binta man bu ma joxoon dee nga waaru togg rek laay def waaw man nga doon jox ndox mu tàng de waaw am na jigéen ñoo xam ruy sax mënuñu ko mënuñu dara la ñu mënuñu waa euh, Oustaz. waaw mais xam nga mooy li nga wax rek Alfi ñëwul tey waroon nañ am koo xam ne man naka remplacé na fi mu ne nii biir xoos na. Ah. man reer def ma ko biig ndax di xaar ndekki Alfi tey jii tey jii nga ñëw fii. Alfi tas Alfi tas nga yaakaar. <laughs> tas nga yaakaaru gaa ñi de. ak ak ak professeur professeur daal professeur Massamba dafa maasaale rek moom dem <laughs> ko moom. jaaxle nañ ci Massamba. Ah. ma de tey dinaa ko mais nag namm nañ ko ñu ngi lay ñaan Massamba Gueye. mu ñëw ñun groupe yeewu leen namm nañu la maa ngi koy wax si soxna su baax soos mu wax la. aljuma jii di ñëw ñëw ci barke Sidina Muhammad wala bu maa ngi lay ñu aljuma daal namm nañ la yitte yi bari na waaye na yi ñëw. <laughs> professeur est-ce que fukki poñeex juróom yi nekkul di ko bind si wolof boobu est-ce que loolu comme comme foofu la bëri gu mag waaw nag aljuma bee passé eh. professeur moom euh, moom euh, conseil président de la république waaw te it euh, ñun conseil yi Euh, dañu nekk ci liggéey. Ah, <laughs> waaw yéen conseil waaw dañu nekk ci liggéey. ayoo ah, conseil. <laughs> wax feeñ de. kon mbokk yi wax feeñ de wax feeñ yaa oustaz yaa muallim yaa muallim moom ndege di ci conseil la bokk gis nga réew maa ngi noonu mbokku téléspectateurs yi ñu dem ci li nga xam ne mooy rax ma Damba ñi nga xam ni ñooy ñooy tàggat yaram boo xoon naa leen ni oustaz Pape Anne ak. ak oustaz Playboy def nee nañ woon Rahma Damba musique bi ñu leen di tagal mën nañ koo mën a bañ a def am na ci woy yoo xam ne mën naa ànd ak yëngu boo xam ne nit nan yaggaayu mag toog yor kuru kurusam yaggaayu yooyu ci la bokk mais yii ñuy tegal ni ñuy wadd wadd ni ni ni ni ni ay buubu yu ndaw yooyu dara jarul mu ko mbaa mbaa mbaa saat bu sàmb seen tabala yooyu waaw mbaa Cheikh Diop mbaa Cheikh bu Diop Cheikh bu am na tabala yoo xam ni bu ko doon teg mën na ànd ngi ànd man naa ànd ànd mën naa ànd ak moom ñoom ñoom ñoom am na am na am na woy woy tijaan yu neex yoo xam ni mën naa ànd ak yàggaayu boo xam ni ah. di nga mën a yëngal seeram waaw ah, inal mën naay la ju saf sàpp rek kon mbokk yi defe naa ni jar na wax buuba jar loolu dinañ ko wax buuba mu xool mu xool nu mu koy doxale mook mook waañ welaal alfi daal nag nit buy liggéey foog ñu wutal ko ku ko remplacer léegi dëgg dëgg boobu loolu tamit ci la Adja Binta li wax dëgg la kon bu jógoon sax Binta mënoon na faa dem toog léegi gis ah. nga El maa ngi lay yëgal ni am na koo xam ne kenn tuddewu ko doom mooy xiif. moo mooy bëgg a rëy. <laughs> xiif amul turandoo. mu <laughs> may wan lu dara jarul fi ma toog. te ñiy seetaan sax ñoom yëg nañu ni am na lu ñu manqué tey. waaw waaw yëg nañu ni saxaar si daan gilli fee. waaw xet gi rek. waaw <laughs> waaw lay sawar moom incha allah bu àjjumaa ah. li ma jaaxal mooy démb ñëw na tey ñëwul dafa mel ni fee a far. alfa it affaire am leerul ah. dem ba nag dégg naa xeer yi mu jóor wax yeewu leen àjjuma bii. Ah. lañ musu dal alfi. alfi ah alfa ah, li tax mu lepp paas tey leneen la. lu mu wax. ah Alfi daal nee na man li mu yëkk fii waa àjjuma démb. yóbbaale bëru Sofia moom bu fi toogoon bu demoon sax bàyyi fi bëru Sofia waaye dem yóbbaale bëru Sofia bu fi ñëw doo mën a togg tamit loolu leerul kon ñu dem ci li nga xam ñu dem ci raxma dàmba te dellusiwaat mbokk yi. salaamaaleykum waa Sénégal kon euh, tey ñu ngi leen di présenter ay renforcement musculaire à savoir on va travailler les abdos mais avant tout on va faire un petit échauffement et on va passer au travail donc euh, on y va allez-y on y va rapidement si même chose. Là, on est très Donc, même exercice, on peut, on peut changer aussi avec l'exercice. On lève l'exercice, on pose encore les coudes. Et là, on travaille les abdos latéraux. Ici, un, deux, trois. Ici, on travaille la taille. Cinq, six. si, si on travaille ces genres de, de, de gainage, de, on fait abdos et taille aussi. On ah. travaille taille aussi. D'accord. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, on, on, est avec coach Ahmed. Donc, on était en train de travailler les abdominaux par le gainage. Ce mouvement-là est appelé le gainage. Il y a des variantes qu'il a essayé de montrer, à savoir le fait de monter un peu le bassin, de revenir. Il a aussi essayé d'expliquer le gainage avec la taille, comment travailler le gainage pour, euh, pour avoir la taille bien taille, bien, bien faite. Euh, et c'était tout pour aujourd'hui. Maintenant, le conseil du jour, c'est quoi C'est éviter de ne pas travailler un muscle successivement et ainsi de suite. Quand on travaille un muscle pour aujourd'hui, il faut au muscle

C'est ça, coach. Ouais. Hein? Donc, si on s'entraîne aujourd'hui avec les abdos, qu'on se repose demain pour prendre le dos ou bien les jambes et laisser aux muscles 48 heures de repos. waaw c'était tout pour aujourd'hui avec coach euh, Ahmed euh, ñu profité waale waxaale na suñu pap euh, oustaz pap an kii moom sa doom la waaw à chaque fois daf may wax sama pap pap sama pap pap moom man moom laa bàyyile sama bopp franchement ku la bëgg la ku la sopp la loolu daal franchement nga ñaanal ko vraiment xale bu baax la franchement. coach Ahmed. donc ñoo ngi lay nuyu. suñu papa allez merci beaucoup <laughs> à la prochaine. jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu mooy loon lor dégg ngeen di nu soppee soppee soppeel fu ne la am kooku nekk euh, doomu oustaz Pape Hann ñu ngi koy ñaanal fanu gudd ak wér ak képp koo xam ni sopp nga oustaz Pape ak képp ko sopp équipe yow leenu ajuma mbokku téléspectateurs yi liggéey am am ca am koom dafa am solo def ci suñu poste dara def ci seen i poste dara ñu mën a fay fayeku bu weeru dee ñu dem ci publicité yi nga xam mënu koy may